te film bu ñaaw waaye tamit jaaxal ñu bëree bëri xewee fa nga xam ne moo di ci diwaanu Pikine rue diis mu di asu ndaw su jigéen su nekk en classe de CM2 am lu toll ci fukki at ak juróom-benn daal di subir ñaari yoon li nga xam ne moo di viol ci ab nijaayam ci kàddu yi nga xam ne loo jot a yëkkati loolee moom ci nopp ñi nga xam ne dañoo di enquête kat yi walla yëngatu ci wàllu yoon ginnaaw bu mu dalee di daw jóge fa nga xam ne moo di seeni kër daanaka ay ñu koy daal di jógee foofu la ci pikin moom noonu lañ ko daldi rek maanaam gisee fa nga xamante ni moo di rek diwaanu jaxaay yi mu doon ci mbedd mi ab borom moto di ko for ci la tukkee ci réeram googule ginnaaw bi ko di gis noonu mu ko daal di fa nga xamante ni moo di seen kër ci Pikine rue 10 ci ay kàddu yi nga xam ne daal dina ko fësal ginnaaw mu dalee di feeñ daal xam ne ne dafa di ne nijaay ji moo ko daloon di fi wale loolu moo taxoon mu daal di génn kër gi dem ginnaaw bi ko borom moto boobule fekkee ci mbedd fële nga xamante ni moo di jaxaay ci àll bi muy daldi wër moom kenn kese borom moto bu ko daldi romb moom tamit amul ab jaaxle ak njaaxare ci xelam lan lay xale bu jigéen war a wut ci dëngëre bi ni mel tax mu arrêté motoom waxtaan ak moom ay kàddu laaj ko noonu xale bu jigéen bi daldi koo dëggal ne dafa dawee ci li ko waral moo di ci ay mbir noonu mu daldi waxante ak moom ndaxtaan bu yóbbu fa nga xamante ni moo di seen kër ci bu mu yegsee ñu bëree bëri daal di daal seen gémmiñ waaye am am jàqare bu métti métti ci loolu nag bokk na ci lu ñëwal tamit da nga xam ne moo di kàddu yi mu yëkkati ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier la dalan di réer ba laata muy daal di feeñ ci bu mu yegsee ñu bëree bëri am jàqare ak tiitaange daal di daal seen bopp ndax ay fan ñu koy daal di wër xëy bis rek am borom moto dal di ko indi ci fa nga xamante ni moo di seen kër ñu bëree bari di laajte mu ne tam moom tamit mu commencé di jooy. waaye danañ leen ko jëlee yóbbu ko fa nga xamante ni moo di ci service nga xam ne ñu ko doon wër mu di waa police ci bu mu ñëwee foofu di ginnaaw bi ko borom moto boobu la gisee foofu la ci diwaanu jaxaay waxtaan ak ñoom ñu daal di koo jël waaye indi ko ba foofu la ci xewi diis moom tamit ginnaaw bi ko dalee di rek déglu mu daan dina di leen xam ne ne ab nijaayam moo ko sàkku ñaari yoon benn bi bokk na ci ak beneen yoon boo xam ne amal na ko jëmale ko ci ndodam mu lu nag muñ li ni dal ci biir kër gi loolee moo waral rek mu dal di daw jógee ci kër googu de waaye borom moto boobu de indiwaat ko indiwaat li nga xam ne tamit tax ñu bëree bëri daal di ko dégluwaat ci li mu yëkkati ci ay kàddu ginnaaw bi nga xamante ni dalal na ko violé li mu ko doon naxee moom rek may ko deux mille francs ngir mu dal di noppi boobu kenn yëg li nga xamante ni moo dal di xew loolee bu njëkk bi danoon di am ci atum 2019 noonu la ko dal di fësalee. ginnaaw boo xamante ni xibaar bi ni mel daal dina fës si enquêtekat yi daal di teewlu ki nga xam ne moo di yaayam moom tamit mu daal di xam ne ni mooy dee doomam mosoon na ko wax loolu ci atum 2019 nga xam ne moo di nijaayam da ko teroon di violé te yi mu yëkkati woon moom mu lay nijaayam jooju de mel ni ku amoon jafe-jafe ci biir kër gi mu ne daal toogoon na rek daal di dem kenn xamul lan moo ko yóbbu waaye tolloog ñaari at rek ci la daal di ñëwaat. ci biir kër googule doom ji ak loolu mu doon sëkk ak njaay ji nekk gone gu ndaw am lu toll ci fukki at ak juróom-benn monte ne sax classe seen dëll nekk a tax na loolu nag moo ko daal di lekk fugguloo mu daal di moo ko daal di lekk loo mu génne ci kër gi. waaye nag ci li mën a jàpp mooy que ni ak ndànket bi fu mu nii de xale bu jigéen bi ginnaaw bi ñu ko yóbbu l'hôpital dañuy deful li nga xamante ni moo di rek ay investigation ci dañ daal di dëggal ne. ci moment yi weesu daloon dina rek sikk ak góor ñi nga xam ne moo di sëy maanaam ay rapport sexuel ci loolu tamit commissaire Arona Ba mi nga xam ni moom moo dal di rek lancé ngir ni dal jàpp ki nga moo di Ndiaye Diourbel ñu ngi ko dal di rek fa nga xam ne moo di ci Pikine yóbbu ko ci police bu Pikine moom moom mu ne ginnaaw bi ñu ko dal di jàppee dafa dal di rek dàqandi ni lépp luñ koy toppee amul dara loo xam ne nekk na dëgg tukkee ci wàllu wi ni mel. waaye teewul ñu ngi ko dal rek teg fa nga xam ne moo di ci yoon ngir daldi ko déglu ci lu ñëwaan li nga xamante ni moo di wàllu woowule fu mu toll daal ci liñ mën a jàpp ak indi ci nga xam ne daal dina amaale moom moom mu di dañuy jaay ji bu nekkee ci garde à vue ginnaaw talaata bi ñu génn ñaar fukki fan nag juróom-benn ci weeru janvier atum 2021 bi liñ koy toppee moo di viol ak pédophilie ci loolu yëpp xale bu jigéen bi moom tamit ci ay woy juróom ci biir kër gi teewul ñu ci bare bare dal nañu teewul waaye di xaarante ak li nga xamante ni moo ñëwal boobu lañ l'enquête lan muy tukkee ci taxawalin bi nga xam ne moo ci war a am di mbir moom mu lay amee ci xale bu jigéen bu am lu toll ci fukki at ak juróom-benn doon def classe CM2 daawee woon seen kër ñu trouvé ko ci jaxaay mu daal di rek révélé ne moo di ni ab nijaayam moo ko doon violé lu ñaari yoon xew yi ni mel amee woon ci atum 2019 waaye tamit yokk ci di ko fay lu toll ci wala di ko may lu toll ci ñeenti ci ngir rek mu bañ a wax. li nga xamante ni moo xewoon ci diggante ak moom